ci biir Gorée nag mag ñi bind nañ ci bi nga xamee ni yàlla def na mu ñëw fii ci Gorée te soxna suñuy wax misel seen ne ko chamratul fuadu tabiin binde ñu gën ko siiwee Serigne moodu bi mu ñëwee te yàlla def ñu jël sang bi denc ko fi ñu ko denc alhamdulilahi rabbil alamin dafa am bés ñuy ziar di rang di ziar di rang di ziar monsieur seen nag yàlla wane woon mu mu mu ñu wax ko ni am na ku ñuy ziar di ku fi ñaw mu ne xaaral mu jog dem bokk ci ziar bi bi mu ñëwee ba tiim sang bi ci gàttal rek laka sang bi muy giixi gaax a kiiwalum laka sang bi ne misal man lakay man la Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam dégg nga borom téere ba mu ni fas daxat sàll mi foofu la daal di euh, jullankaaroo ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam xam ne la yàlla wanoon indil na ko xéewal Baye Laye nag nekkam ci biir gore dafa nekkoon xaritu Michel Sène lu bëree bëree bëri Mame Babacar Diop ma ngi jëlee nañ ci moom ni am na bés gars yi di seet di seet seen fekk ñu ko fi ñu topp tànk yi ba dugg kër soxna Michel seen waaye ba ñu duggee euh, doxus ci biir néeg ba rek fa mu wéeru woon dafa nekk benn bant ñu dugg ne ana limaam ñu leen ana limaam ñu gént ñu génn mu doon sanga ba bi ci des dañu ne jaas mu nekk weer. ne tapp ci loxo soxna si mu ngëb ko gars yi ne ana mu leen ana limaam mu ñu ne paymat mu doonaat jëm mu gisaat yooyu jëfandikoo na ko ci biir gore ba sax histoire ñooy wa dégg ngeen ko am na ñu naan diwéy ñooy wa waaye moo Modou moom li mu nettali def ni fa yesh rafal fiilu mu soppiku ñay wa bi ñu ko indilee seen yu ba yu araam yooyu xibaar yooyu nag la nekk woon ci biir gore ak di leen teral ba moo tax keroog ba nga xamee ni wax nañu ko ni da ngay ñibbi gore yëpp dafa mel ni ndax rek miin gu ñu miinoon sang bu tedd boobu ak li ko fi indi woon mu wëlbati ko moom soppi ko ay xéewal di def ay teraanga ci ñoom di def ay yërmande ci ñoom yoo xam ni kenn mënu ko natt ndax Seydina Limaamu yërmandeem ak xéewaleem kenn mënu ko natt moo tax bi mu ñëwee gore rek mu daal leen di contaminé ci loolu ba keroog ba nga xamee ni waat na pour dem kër Thierno Mbaye Sylla fanaan fa mu nekk histoire boo xam ni kenn mënu ko nettali ndax yërmande ci biir Gorée. yonente boo xam ni ni mu jekkoo aaxiru samaan amul koo jekkoo noonu moo tax gis nga. damay wax ni soxlawul di waaraate ci ay moogisaatam ay rëndal géej ay naag doo déet xooleen njàngale Seydina Limaamu rek fi mu fi mu fi mu koje àddina ci jigéen nga xool ni jigéen torpillé àddina mu ñëw nga juddu mun a maye leen ngay dem si kër mun a tudd leen yàlla nga juddu mun a uuf leen tudd yàlla bi ci des xoolal ni Seydina Limaamu régler situation àddina fii jamono bi toll ci matit fii mu toll ci tartar xoolal bu ñu jëfandikoo woon li bay lay digle ci ay njàngaleem ci zakkaat coono coono moom daanaka ala kulli alim dina am waaye kon du demee nii nga xool li Seydina Limaamu wax ci ci feebar yeeg sida yeeg ba mu ñëwee ni mu instauré maanu boo jëlee jigéen maye parce que jigéen ko defar rek defar nga nation te laka ka la ka waykatam boo wax ne ko euh, euh, tàmmal nga say xale ñuy xancu yoonu yàlla bay mag yéeneetuñoo bàyyi lislaam yaanu wan yoon wi sëy naa limaam nag ku mu wan yoon rek yoonu jub la la wan tampal suñuy sur fa diiwaan yaay borom diina kon nag lay maxtaan waxtu wee xat mais njàngale sëy naa limaam defar na adduna defar na àllaaxira